waaw victoire bi Wamaka Sénégal ñoo ko mën ci yoon. waaw ñu ngi si sant yàlla bu baax a baax. waaw xam nga tey jii ah, sénégalais xamagun ma ci vois sama sama sama samay loxo ay millions laa si fay mais xamagun ma quoi xamagun ma xamaguma lu ma lu ma mane en cent pour cent mais incha allah si kanam la. It's Friday night. bi am na lu muy am na leneen lu may yokkal. tu vois voilà loolu la quoi mais ñu ngi si sunu liggéey voilà. ah xanaa marqué si sama empreinte incha allah doon si champion champion du monde incha xam nga mënoo ñëw rek am benn kese bi da def nank-nank bu doonoon làmb tamit na ngay si yaw jàll ngay commencé ba yëg tu vois loolu la quoi mais sant nañ si yàlla quoi waaw <laughs> jërëjëf. vraiment bu ko defee nii est-ce que ragaloo musul làmb. non xam nga boo xoolee staff bi wax nañ ka ñoom staff bi ñoom euh, ñu tëgg affaire bi nee nañ. MMA c'est le MMA. làmb c'est le làmb. ok ñoom wax nañ ka c'est bon baax waaw am nga élément ndax lu ma gëm la lu nekk si man la bëgg naa doon loolu incha allo kon nag mbokku internet yi yéen nga xam ne yéen a ngi suivre euh, seen internet seen arène ñu ngi fii tey si musée euh, des civilisations noires nekk ñu stade Iba Mar Diop